barkeeloo ci bés bi sant yàlla bu baax koor wi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin wala ñu jaamu yàlla fekkee ni nga xam ne noonu la ko ñu jiitu woon defe pour ne da nekk ci ab suñu borom bu ko fekkaloo ñu ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil di ñaanal jullit yëpp tey ñaan ñu teewe ko di bëree jiital suñu ñaan ñaanal koo xam ni yàlla def na ko mu doon sagu yoon mu doon sagu lislaam bi mu doon sagu der bu ñuul Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te wér moom ak bépp kilifa diine liggéey bi ban ko tàmbalee yàgg na président Ablaye Wade daf ko ñoroon fee la nu jëkkoon jël ndeke fi nu jëm moo nu gënal téeméer damay fàttali ñëpp ni leen plan yi plan yi nga xam ni moom la ñu exécuté sëñ Saaliwu si boppam moo ko doon corriger di ko rectifier yàlla daf ko mayoon si wàllu googu lu bari architecte bi dafa toog mi ni ko defe naa ni nii moo gën nii moo gën dem na ba wax ni ka am na loo xam ne dina am si réewu naar yi waaye dafa dul gën suñu réew yi ndax ni nu ni nu bindoo la loolu yëpp mu leeral ka may structure mi doon architecte bi ba liggéey bi ak si fii sëñ Alaaji Baara ñëw fii moo teg pierre bi moom ak président Abdoulaye Wade ñu jóge fa sëñ Cheikh Sidi Makhtar laxasu kemtu lay kàttanam def ko si liggéey bi xam ni jumaa ji ndamal sëñ Touba la xam ni jumaa ji mooy tontu sëñ Touba ak ña ko bëggoon suul tey suñ demee bay wax jumaa Masalik te sëñ Touba tubaab bi fexeem yépp moo doon suul sëñ Touba bi nga xamee ni tële na mu jéem ko suul kon sëñ Cheikh Sidi Maxtaar def si kemtulaay kàttan àndandoo kaak kan jàmbaar ji nga xam ni yàlla moom la mbay mbégte wu mu ubbi jumaa ji mu Cheikh Mountakha mu Mountakha damay wax ni moom yàgg naa ko wax ni da ngay saral xolu jullit yi da dalal seen xel ba pare dañ leen di bégal mm-hmm. mi lu koy indi mooy ree ju neex dalal xel gi mooy day delloo ñëpp si yàlla mhm. kon Cheikh Mountakha yàlla nañ ko yàlla fayal maa ngi nuyu kilifa diine yëpp nag ma kenn senegaal maa ngi leen di ndokkeel si bés bii te di ñaan nag jàmm sax Sénégal Sénégal jàmm moo ko jig te jàmm fee am lu tax mag ñi ñoo ko ñaan tàllal ko seen loxo ñun ñëpp nañu góor góorlu loolu mag ñu bàyyil ñu fexe ba jëmale ko kanam. bi ñu sant yàlla jun si yonent bi sant suñu Serigne suñu wasila Serigne Touba Cheikhou Khadim ñoo ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax baax di teew fii tey di nga xamante ne mooy julli korite gi di ñaan yàlla na ko di jégalu di baalu àq nit ñi tey baalu àq ñëpp tey ñaan yàlla na yàlla ñu yàgg koo fekkee te lépp luñ ci woor la yàlla dimbali ñu defal ñu ko ay yiw sotti ñu ko ci Sénégal yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla dàqal ñu mbas mi nga xamante ne tey sonal nañu torop loolu lépp day aju day lalu ci jàmm rek day lépp ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñun ñëpp ñoo bokk gëm yàlla te dara gënul foor lu suñu ngëm-ngëm kon tey su Korité ak Ascension dajee dañ ci am mbégte bu baax a baax baax di ñaan lépp li nga xamante ne ñaan nañ ko fa rek yàlla na nekk jàmm nekk xéewal yàlla sotti ko ci suñu mu nekk loo xam ne njiglaayu dëkk bi la yàlla def jàmm ci dëkk bi ku ci nekk rek li nga yuut yàlla yombalal la ko nga jot si mbégte moomu lañ ci am xanaa di santaat yàlla bu baax a baax a baax di la di ñaan lépp li nga xamante ni yiw la ci koor gi rek yàlla na ko yàlla sotti Sénégal ñaanal son excellence le président Macky Sall yàlla may ko mu yeggale sagoom mu yeggale ak sagoom ci projet yi nga xam ne am na ko Sénégal di ko ñaan aussi lépp lu mu sumb rek yàlla na ko yombal ci jàmm yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax. mel imam bi la parce que ki nga xamante ne mooy mbàkk yu fay génn euh, ngir euh, koy kiiyee naka moom la kay doomu Serigne Abdou Khadre mooy. jiite julli ji saa su ne moom moo moom moo agsi noonu gis nga